tey dañ fi daje ci cadre benn structure bu ñuy wax Karanta boo xam ne mu ngi Mali euh, regroupé juróom-benn pays boo xam ne Sénégal da cee bokk parce que Sénégal UEMOA la bokk donc Karanta boobu tey moo ñëw euh, jox ñu financement pour ñu former suñu acteurs yi nga xam ne ñu ngi ci ministère de l'éducation nationale pour renforcer li ñuy wax ne suivi gëstu seetlu Euh, apprécier li nga xam ne moom la ñuy def ci ci suuf ci base bi parce que dañuy génne tout le temps xaalis ñu di ko wax budget di ko def ci ay programme muy wàcc ci askan wi muy wàcc ci jigéen ñi di wàcc ci xale yi di wàcc ci tuut tànk yi mais est-ce que xaalis boobu ñuy génnee di ko def ci ay programme di ko wàcc ci base bi est-ce que seet nañ ndax lañ ca bëggoon pour jigéen ñi suqale ko gis ci seen bopp xale yi suqale ko gis ci seen bopp est-ce que am nañ ko loolu atelier bi ñuy def ñu koy wax suivi évaluation ak statistique mooy moo ñuy euh, mën a yóbbu ci ñu joxe réponse ne waaw wala déet kon tey atelier bu am solo la boo xam ne ubbi nañ ko pour quelque agent mais dinañ ko gën a yaatal après pour mu mun a law ci Sénégal yépp parce que lépp lu ñu def tey ci budget programme yi nga xam ne moom moo ñëw ministère de l'éducation am si juróom-benn man ma yore bi ñuy wax éducation de base des jeunes et des adultes mooy formation bi nga xam formation ak xam-xam apprentissage du wees boo juddoo ba ba ngay dee da nga war a yokk sa xam-xam ci domaine yépp loolu secteur boobu la ñu yor ñun amul ndaw amul mag dañuy jël ñi nga xam ne mosuñ jàng ñu fexe ñu jàng jàng nag du ci làkk français rek am nañu arabe bi ci daara yi am nañu wolof bi ci classe d'alphabétisation yi ak feneen ak feneen na nit ki jàng rek am xam xam-xam boobu nag daf lay permettre nga mun a aussi yow nga gis sa bopp bu dee commerçant bi mu mun a nag importer exporter mun a dugg fu mu fu ko neex donc renforcement boobu dafa am solo te xam ngeen ne programme yi aussi dafay basé wu actuellement ci numérique bi tey bu ma taxawee fii di wax lu ñuy wax numérique moo koy yóbbu de machines yi ñoo koy yóbbu tey technologie de l'information et de la communication kenn teetul ne buñ ko utiliser wu rek du ñu dem yooyu yëpp ay renforcement de capacité yi ñu war a def la am ay. statistique tey mun a wax ne ci téeméer bu nekk am nañ ci lii ci analphabète man actuellement dañuy utiliser benn euh, taux boo xam ne cinquante 54 pour cent la mais mun nañ wax ne dañ koy wax parce que moo officiel. mais depuis 2012 ñu ñëw fi ba léegi di ubbi bés bu at mu nekk lum tuuti tuuti dinañ ubbi juróomi téeméeru classe te lool ba léegi ANSD dugalu ko kon 54 boobu man dama koy jël toujours entre guillemets ndax comme dugaluguñ loolu dugaluguñ PEJA li mu def dugaluguñ PALAM li mu def kon man yaakaar naa ne sax ñu nga ca quarante pour cent yi léegi ci analphabétisme mais comme mënuñu ko wax du ay statistiques fiables formation yu mel nii mooy tax ñu mun a. am loolu mun a wàcc ci terrain bi mun a def suivi évaluation arrêté PDEPGA bi sax man dama leen ne dañ dañ ko dama ko bëgg a arrêté tuuti nag ñu def suivi évaluation comme gis nañ manuel de procédure bi defaraat nañ ko ñu xool nag depuis 2012 ak léegi li ñu def ban jeexital la am ban ban impact la am si ñi nga xam ne ñoom lañ ko wàcce leen ci suuf pour am yaakaar ne ñii kat bokkuñu ci woon gisuñu si seen bopp léegi bokk nañ ci gis nañ seen bopp.